ahmadu rabbi ala kitaabihi lasi ala kullu kitaabin nusila bi kelkali wa bil fami bu ngeen gisee woote bii lislaam xewleeti na waaye diine wooteeti na lan moo xew mooy woote daara ji nga xam ne mooy daare ji gën a rëy ci réew mi muy daaray kokki kan moo koy woote mooy donga yi nga xamante ne dañoo génne ci première trace Sëñ Ahmad Sahir Lo ba tey jii Serigne Makhtar Naar Lo waaye am ci donga yi koo xam ne baayam da doon kenn ci daara ji muy baay moorloo doon taxaw daara ji doon dimbali daara ji waaye doon jàppale daara ji kookee nag moo ñëw bokkaat ci ñi nga xam ne tey ñoo ñëw di taxaw daara ji muy kan muy sëriñ Fallou Galas Lo gaydel buur daali gaynde kokki fajkatu aajo bi nga xam ne moo ne ci Nord Foire moo ñëw nag ci réew mi ah réew mi wuy si ko réew mi nag biñ ko wuy mu won boppam ginnaaw won réew mi ginnaaw moom dëgmal li nga xamante ne mooy daaray kokki bi mu dëgmalee daaray kokki di faj aajo ci réew mi ne man lu ma mën a am daaray kokki laa koy yóbbu sëriñ Fallou galasuloo gaydel daar bur daali gaydel kokki mooy woote di tàllal loxoom li nga xamante ne mooy yelwaanal yor mbuusam ne ci réew mi di yelwaanal daara ji nga xamante ne mooy daara ji gën a mag ci réew mi ndax daara joo xamante ne 5480 taalibe lay def sëriñ Fallou Gallas Lo Gaydel ne man sama yitte yëpp sama bëgg-bëgg yëpp mooy yelwaanal daare kokki di leen taxaw ci dund di leen taxaw ci sol di leen taxaw ci li nga xamante ne mooy ay dàll ak ay matelas loola nag at mu ne moom lay majjaal di ko yóbbul daare kokki bis li ki tey nag la ñu tàmbali majjaal mi bala fay loola waral sëñ Fallou Gallas Lo di tàllal nag réew mi loxoom mboolem ñi ne ci réew mi Serigne Fallou nee na benn bis képp lay woote mooy bis bi nga xam ne mooy yelwaan wi muy yelwaanal daari kokki muy le 24 incha allahu rabbi mooy wooteeg daari kokki waaye Serigne Fallou dafa wax ne bis ni ki tey talaatay tey laa tàmbali yelwaan bi waaye le 20 décembre laay arrêté yelwaan wi yelwaan wi nag Serigne Fallou nee na li tàmbalee ci dërëm ba ci junni ba ci milliar ba ci million képp goo xam ne am nga yéene ci alquranul karim sëñ Fallou nee na tàllal na loxo goo xam ne bëgg ngaa dimbali daara sëñ Fallou nee na tàllal na loxo goo xam ne bëgg ngaa taxawu daara sëñ Fallou nee na tax tàllal na la ko kon nag yelwaan nga ngoog sëñ Fallou daal yor na mbuusam di yelwaan toll ci génération bii mu toll ak bii mu toll ci réew mi waaye wan loolu yëpp ginnaaw ne man nag kooki rek mooy sama référence kooku rek lay taxaw kooku rek lay dimbali muy daar ji nga xam ne képp koo xam ne def nga ci sa ñaq sa borom dana la fayal boppam loolu nag balaa maa sori damay jëlaat kaddu gi jox ko kenn ci si wëllëri jotaay bi mu jël kaddu muy sëriñ Modou Mamoun Lo Gaydel al infaq fi sabilillahi boo ko déggee nag mooy jëf ci yoonu yàlla liggéey ci toolu yàlla saabul la nee diw faatu na lim lay bett bett yow sa sa bosa la koy gën a bett yori milliard nag nekki dëkk bi xëy suba faatu bàyyi ko fi ñu ne nañ ko jàngal alxuraan ñooy ñëw di seere ñëpp kenn ku ne di wax lu baax loo ko mas a defal ak loo ko mas a may ak loo ko mas a teral te dëj ba la muy rëy yëpp leen rek la ñuy yaakaar ci yow muy alxuraan ji la jiñ lay jàngal léegi yow ana loo defal alxuraan ana loo jëf ci alxuraan ana loo jox alxuraan kon nag képp koo xam ni fàttaliku nga lii ma wax fàttaliku sa bisu faatu xam ni dafa la goo dara alxuraan jëfoo ci alxuraan ti alxuraan bonte yaa ngi ciy jëf alxuraan lu ci waaye jëf du doy ndax alxuraan da dëgg mooy ni waxi suñu borom kon nag képp koo xam ni yàlla man loo na la ko donte benn dërëm la ba àgg milliard nga jël ko jébbal ko sëñ Fallou Garass Lo mii mu yóbbu ko kokki daara joo xam ne nag juróomi junni nit ak lu topp ne fa te kenn du fay se seen lekk seen naan lépp aju ca borom daara ja loolu kokki nga koy fekk bis bu set danañ soor lu mat juróomi toni ceeb loola nag bu amee ay nit a ciy jàpp kon nag nanu liggéeyal alxuraan nanu jëf ci alxuraan ànd ak sëñ Fallou Garass Lo fekk su ko ci liggéey boobu alxuraan ku képp ku jëflanteeg moom boo duggee ci bàmmel di nga xam alquran rek a mat a jëflanteel képp ku jëflanteeg alquran keroog bu nu dekkee ba nga war a jéggi siraat nga xam ne alquran rek a war a jëflanteel waaye àjjana nag la fay dëgg te ne fa mooy alquranu karim kon daal la sëñ Fallou Gallas loo woo na ñëpp na ko ñëpp fekk moom nag bu wootee alquran wàcc na ndax maamam ji njëkk a sant loo saamar ibnu suufi la tudd ñu ne ko noo tudd mu ne saamar ibnu suufi noo sant mu ne xawma loolu ñu ne ko loo xamu mu daal di génne aliwa ji ñu bind lawxu loolu moo indi loo kon yow da ngaa judd ci alquran màgg ci alquran namp alquran doon na alquran kon yéen ñi ñuy tuddee borom teranga ak ñi ñuy woowee ay DG ak ñi ñu naan na xale xaale xaalis entrepreneur yeeg homme d'affaires yeeg yéen ñëpp kenn ku ci ne nit ñi xam nañ la ci lu baax xam nañ la ci jëf lu baax ngeen di ñu ko jëfal ñun ñii ñu koy jariñoo waaye ñun ak yéen li nu gën te du nu jariñ tey ëllëg mooy alxuraan kon yéen ñëpp jëf leen ci alxuraan bi waaye ana sëriñ Xaadim Mbay loo may indil ci woote wi nga xam ne mooy woote daaray kokki bu waxtu yu tolloo fii sëriñ Fallou Galas loo benn woote rek lay woote su génnee daaray kokki moo woote nee na ku mu lebalul woon na nga ko lebal si ku mu lebaloon na nga ko fay si te xam ne kokki ku ca leble Fallou Galas loo moo lay fay te Fallou Galas Lo ku mu fay sëñ Fallou fay la te ku sëñ Fallou fay sëñ Abo fay la waaj leen bu kenn bàyyi mbubb bu kenn bàyyi daal mbiskit ma dongo yey ndekkee bu kenn bàyyi kafe bu kenn bàyyi téeméer ba ci million ku la raw ci àddee la la rawee te yalwaan gii Sénégal gépp xam na ni ki koy def bu nu xefoon mu yóbbu li mu am comme dafa woo ñëpp daa bëgg ñëpp jariñu nan àndandoo soobu ànd ak moom ñu dem kokki jërë ngeen jëf mais nag tàllal na yoonu murit gépp ak lislaam gépp loxo waaye nag balaa ma sori maa ngi jël sama kàddu di ko jox sëriñ Aliou Sànq mi nga xam ne moom it day doomi daara wa qaala masalu alladina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali xabbatin ambatat sabaa sanabila fi kulli sumbulatin miatu xabba wallahu yudaaifu liman yashaa wallahu waasiun alim yàlla sunu borom subhaanahu wa taala di wax ne képp koo xamante ne dafa gëm buñ lay woo ci loo xamante ne dafa lay dundal te alquran dafay dundal li jaadu mooy nga wuyu te yàlla dafay wax ne ana kam mooy lebal sunu borom subhaanahu wa taala te yàlla buy fay day fay ba wis kon fa tabaarakallaahu alquran moo woote te nee neen lépp lu gën ak lépp lu ñuy dépensé si yo si yoonu yàlla mooy nga dépensé ko si nga xamante ne mooy alquranul karim tey nag daara Koki moo woote di daara joo xamante ne fa tabaarakallaahu ki ko sanc mi sunu maam si Ahmad Saxir Lo nekkoon koo xamante ne ñi alquran naan minal muminina rijalun sadaqu maa ahadullaha alayhi fa minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila nekkoon koo xamante ne góor yàlla la woon daana koo xamante ne bëggul doom sax waaye doom yi nga xamante ne ñoo nekkoon ay doomam mooy taalibe yi koo xamante ne daraan wax naan su sañoon ki nga xamante ne mooy jàng ci daara ji daf koy fay di fay ñaari waajuram kon kooku yaakaar naa ne am na fu mu tegoon alxuraanul karim waaye nag bu ñu waxee daara kooki nag dafa am loo xamante ne dafa war ñi nga xamante ne ñoo fa nekk ci ay taalibe yoo xamante ne mën naa wax ni li nga xamante mooy dund daara kooki boo fa demee kenn du fa yàlwaani ji ñun ñi fa lañ fa lañ fa lañ jàngee karim te sëñ Fallou Gallas loo muy di woote bés bi nii mënoon naa woote bés bu ko neex mënoon naa woote comme comme xew léegi woote bés bu ko neex boobaa ñëpp koy wuy si réew mi ñëpp koy si mu ne nag man xooluma benn bés kenn laa yëkkati muy alquranul karim te ñëpp nu ma mel muy man produit alquranul karim laa te woy juram nekkoon koo xamante ne ñun ràññee nañ ko ndax woy juram ak sunu woy jur alxaaji ahmed sànqe bokkoon nañ si ñi nga xamante ne dañ daan taxaw daaray kokki woy juram mu noo tudd ñaari nit ba ñett nit te doo tudd woy juram ci dund li nga xamante ne mooy bëgg daaray Koki bokk si ñi nga xamante ne yàlla naan wa jaala li i'laa kalimatu laa ilaha illa allah lenn leen moo ko ñoroon muy alquran yëkkati ko ci kaw baatu laa ilaha illa allah yëkkati ci kaw comme moom loolu la ñëw dañ ne alwaradu sirru abihi moom nag loolu la ñëw donn ko ñëw nag am si ndigal nag ndax lépp nit lépp looy def rek na ci am izn moom nag da cee am ndigal wax ne nag xeebu dërëm xeebu ñaar dërëm yëpp lu waay am ba ci million ba ci milliard boo ko joxee mu yóbbu ko li nga xamante ne ñi ngi si jamonoy seddaay te li nga xamante ne mooy ay yére wala lekk wala dund loolu daare kooki dañ koy soxla kon sëñ Fall loolu nee na amul benn bés wootewul benn bés lu dul lan muy alxuraanul karim waaye damay jëlaat kàddu gi rek jox ko ki nga xam ne day kenn ci réew mi muy sëriñ Ngañ Mbuub mu wax ñu sunu màjjaalu kokki bi nan la ko waajee moom ak nan la ko sëriñ Fallu Galas Lo waaje boo mënee alxuraan da nga koy tari bu la alxuraan mënee da ngay bàyyi tere yi def ndigal yi sëriñ Fallu Galas Lo gaynde kokki fañ la lebale boo amee fa ngay dem fayiwaat bor alxuraan a ko lebal kokki la ko jàngee mu ni dama yalwaan ab taalibe war naa yalwaan dongab daara war naa wax mastata kon daf ni lu waay am moone moom am na dépense am na passé waaye dafa bëgg ñëpp jariñu lu waay am dërëm ba milliard nee na nga jox ko ko mu jox la ko alxuraan asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërëjëf age ngañ buub na solo lool ci woote wërëy wii ñëwaatal daara ju mooy daaray kokki waaye balaa ma sori Serigne Lamine Seck communicateur lan nga nu indil ci wooteeg daaray kokki jërëjëf mbokk yi mastata jëf jël mbokk yi ku jëfut doo jël Serigne Fallou Garas Lo buuru daali mooy woote woote bu selli bii woote bu nu gërëm woote boo xamante ni bu ñëpp ànd la ca mu koo jëf jëfal daara ji nga xamante ni mooy daara kokki fa nga xamante ni fa leen di nase ak di fa jànge téere sunu borom tabaraka wa taala bi mbokk yi bis baa ngi noonu bu kenn tay woote baa ngi noonu jëf jël jaa ngi noonu masata jaa ngi noonu képp ku ci jox sa dërëm li tàmbale ci dërëm ba milliard lépp lu ci waaye def Serigne Fallou Galass Lo buuru daal dina la ko defal fii nga xam te ne mooy daara Koki te daara ji ku ne xam ne ay ndaw rek ñoo fa nekk ndaw yoo xamante ni si lu leen waaye jox xam ngeen ni yàlla nga ko jox yonent bi nga ko jox waaye nag nit arxuraan nga ko jox kon mbokk yi bis baa ngi noonu ñun ñëpp nañ ànd lu waaye am nga jël ko muy dërëm muy ñaar fukk muy million muy milliard ñun ñëpp ñu ànd dajal suñu àddiyee jox ko Fallou Gueye Lo Bour Daly mu yóbbul ñu ko ci daare Koki mel ne ba tey maa ngi jëlaat kàddu gi di ko jox nit ko yàlla baaxal bëgg lool diine muy sëriñ Pam Maguette mu wax ñëw nan la wootelee daare Koki wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib jërëjëf Alaaji Seydou Si bis nag boo ko dee woote ci réew ba borom réew ma woote ci war nga bàyyi xel bis ba te waxtu wi daaw ko jàpp télé bi jàpp réew mi dégg nga président de la république di woote bis bii nuy woote tey looy def ci réew ba borom réew mi yëg ko war ngaa xam ne la ngay def yëg nga ko te teg nga ko ci yoon alxuraan nag sëriñ bi dox suñ digganteeg yàlla daa amul lu ko gën sëriñ fallu nu ngi ñaan ci doole Cheikh Ahmadou Bamba bis bii ngay woote nu mas a mel yàlla na ni bii raw di ñaan képp lu waay am na ko def ci bis bi ndax kat sëriñ Mamour wax na ko léegi loo xam ne soo fi bàyyi ko moom ngay bëgg ñu defal la ko soo fi nekkee war nga cee góorgóorlu te la fi nekk waaye perkaalub sëriñ bi ak perkaalub dong bi amut yu mën a xew fi lañ koy ba teraanga lu mu bari bari fi koy ba te ku dee weeru nan jiital ci sunu li nu am ci saa borom bala noo yóbbu ci saa borom kon sëñ jëre jërëjëfati lii nga fexe ba muy dem ci réew mi nga fexe ban koy def nu ngi ñaan ci yàlla yàlla yàlla fayal nu la ndax njariñ ku fexe nga jariñu ci mënoo koo fay alaaji Seydou yàlla yàlla defal ñëpp jàmm wasalaam aji pam Maguette woote wi rëy na lool waaye woote wi am na solo lool ndax ki ñu wooteel ak li ñu wooteel moo rëy ci réew mi muy daara ji nga xam ne mooy daara ju kawe ji daara ju màgg ji muy daaray kokki ah sëriñ Fallu gëlës loo gay del buur daali gaynde kokki da ngay jàmbaari alquran nga donn alquran fekkoon sa baay di woote ak di taxaw ak di jàpp daara ji nga xam ne mooy daaray kokki muy baay mooy loo mu baax mi nga ñëw jaar ci sa tànk way jur yu baax wi rek maanaam ne damay taxawu daara ji damay dimbali daara ji ndax man ressource dans daara ji la kon lu ma am ci daara ji laa koy yóbbu loola war a sëñ galas loo woote woote bu réy bii waaye maa ngi jël sama kaddu di ko joxaat ki nga xam ne mooy ustaas bi nga xam ne réew mi ràññee nañu ko réew mi xam nañ ko afdalu maa yuqla wa maa yuqaalu wa xayru maa yunfaqu fihi almaal qiraatu alqurani inda annaas kada rawa a'immatu alqiyaas mbokk yi wolof nee na pël ga laa fanaan xëy gàll tiir waxoo dëgg fanaanoo pël ga pël ga ku fa fanaan war ngaa xëy gàll leneen lu dul tiir nit bu jàngee alquran wattu alquran mokkal alquran yëngoom ak dalam lépp alquran la war a doon moo waral jataay bii boo xoolee xar kanam yi fi toog xam nañu alquran teral ñoo fi toog nit nag fa nga lebee foofa rek ngay fayee yàlla nee na am na ci góor yàlla yi ñoo xam ne laa tulhihim rijal eh, eh, tijaratun wala tay wala bay'un an zikrillah xam nga sëñ Fallou bu ne tëj naa liggéey bi arrêté naa liggéey bi ba daaray kokki jàll loolu mooy laf na liggéey bi laf na yëngu-yëngu àddina dëgmal borom bi te góor yàlla yooyu la tal yàlla tàn tànnoon tagg leen ne rijaalun lañ yoo xam ne laa tulhihim tijaratun wala bayun an zikrillah yàlla nee na sama góor yàlla yi piir su ma xasee addu dootuñu yëngu dootuñu def dañ may wuy si ba ba may pare moo waral woote bi nit nag bu tàllalee loxoom te loxo bam tàllal dub loxoom loxob yàlla la ndax yàllaa tàllal loxoom ne ku may lebal man yàlla ma fay la gor su tol ne yàlla ku mu leb nga war koo lebal ndax bu la fayee ful ko kon sëñ Fallu tàllal loxoom bii dub loxoom loxo yàlla la mu jottali jaam ni góor gu baax nag nitu yàlla bu baax ñu koy wax ceer Ceerno Ahmad Ba dafa wax ne boo amee dara te xamoo dara nga am doom amul dara xamul dara nga jël doom ja jox ko sëriñ daara mu xam dara te amul dara te dara ja nga am dimbalewoo sëriñ daara ja ca dara bu sa doom xamul dara waroo wax dara mbokk yi woote baa ngoog benn rek la na ñëpp dëgmal jël li nu am jox ko yàlla te xaar payu borom bi subhaanahu wa taala kon fii ba la 20 ndimbalu daara ji la le 24 ñu dëgmal ci bis bu mag ba daje ngir bisu alquran ndax liy dalal réew mi di ko may jàmm mooy alquran bis bu ñu lafee alluwe yi àdduna tukki waaye balaa maa sori maa ngi jëlaat sama kàddu di ko jox Serigne saaña mbay communicateur mu wax ma ban woote la indil wootey daaray kokki la daan xew xeweti na lan moo xew yalwaanal daaray kokki kan moo ko woote Serigne Fallou Garas Lo gaynde kokki ne bawul kenn mi ngi woo ku naan asadu an laa ilaha illallah xodoo la sërikaloo Serigne Fallou Lo bawu la benn bis rek laa muy kokki len rek a xew muy kokki bis bi nag kañ la le 24 décembre fii ba le 20 mooy woote bi mu yalwaanal kokki bawul kenn bawul ñenn bis baa ngoog ma jël sama kàddu jox ko AJPR communicateur waaye ki woote mooy kat sëñ Fallou Galass loo gaynde kokki bur deeli jàmbaar ji nga xam ni at mi benn bis lay woote bu génnee ñëpp xam ni bis bi muy woote rek ko jar muy bis alxuraan te alxuraan ku si def yàlla lay fay sëriñ Fallou nag talal na loxo woo ñëpp bàyyiwul kenn majjal gi muy majjal xeebul dërëm xeebul ñaar dërëm xeebul million xeebul milliard ku def si alxuraan yàlla fay la te bu yàlla fayee nga xam ne suñu borom fay na la bis bi kañ la le 24 décembre sa kokki maa ngi woo ñëpp waaye rawatina nag sunu bokk géwélu communicateurs yi waaye balaa maa sori damay jëlaat sama kaddu jox ko communicateur bu rey bu mag ci réew mi muy Baye Talla Daaru yaa kitaabal karimi ku jàng tari xam-xam xaw ma bokku ci waaye Serigne Fallou Gros Lo xam nga moo wooteel alxuraan majaalal kokki ku ci def sëb dërëm alxuraan fat la te ko alxuraan fat doo fanaan biti wasalaam. maa ngi joxaat communicateur bu rëy mooy ki nga xam ne mooy Abdoulaye Mbuub mu ko tuuba mu wax ñu ñoom waa Touba ana nanu waajee li nga xamante ne mooy wooteeku daaray kokki. damay wax ne bis kenn ku nekk sa bis nga am te El Hadj Fallou Gros Lo daa waroon a toog ca daara ja di jàngale alxuraan. waaye deful loolu sëriñ maxtaar naar loo am lu mu ko sant bisu kokki nag daal di ñëw sëriñ fàllu gales loo daal di ne damay majaalal daara yi kon ñun communicateurs yi ñun ñëpp nañ jàppoo man de sëriñ fàllu galas loo maa ngi lay wax ne man ñëw naa ci yow engagé naa bis bi ñu ngi koy waaj ñu ngi ñaan ci barki sëriñ tubaa yàlla ñu ko fekkee ak jàmm waaye balaa maa sori maa ngi jëlaat sama kàddu di ko jox communicateur bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci réew mi muy Serigne Hadji Lamine mbokki réew mi ak bitim réew bis baa ngoog di le 24 décembre lan moo xew muy bisub diine bisub alxuraan kan moo ko woote Serigne Fallou Gallas Lo lan la woote mu ni damay màjjal bu màjjalee fan lañ koy yóbbu xanaa kokki kon bis bi le 24 décembre Serigne Fallou Gallas Lo tàmbali na màjjal bis ni tey na ko ñëpp waaj bis baa ngoog wasalaamaaleykum wa waaye nag màjjalu kokki bi Serigne Fallou Galass Lo Gaydel Bour daali Gaynde Kokki moo ngi ciy tàllal loxo ki nga xam ne mooy njiitum réew mi son excellence le président Macky Sall président Macky Sall ku fonk daaray kokki la waaye ku jàpp daaray kokki la Serigne Fallou Galass Lo Gaydel Bour Dali Gaynde Kokki nee na moo ngi la ciy tàllal loxo di ci tàllal loxo nag sa soxla su baax si nga xamante ne dafa mën social muy ajartu Marème fay Sall ah daara jàngoog nag lu waay bëgg defal ci daara ji ku def ci alxuraan yàlla fay la te ku yàlla fay maanaam doo fanaan biti du ko fanaanul biti yaa ngi fanaan ci biir kon daara jàngoog kon ay balaa maa sori maa ngi jël sama kàddu jox ko suñu Abdoul Aziz Mbaye mu wax ma nan la wootelee daara Koki bu ngeen gisee jataay bii ngeen xam ne am na lu xew leen rek nag moo xew muy daara daaray Koki ndax sëñ Fallou Galass Lo buur daali tëggul benn bis wootewul benn bis leen rek lay woote muy màjjaal daaray kokki te nag ku munta leble ca dëgg-dëgg nag nga war a mën a fay bor te sëñ Fallou Galass loo nag ku mas a tëgg sa bis wala nga woote ko moo cay njëkk moo cay mujj moom nag bis bii rek la am muy daaray kokki mu ngi woo ñëpp bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn ku fa ñëw nag alxuraan fat la te ku alxuraan fat nag doo fanaan biti waaye xam ngeen bu ñu màjjaalalee daaray kokki ñu tudd jàmbaar ji muy Serigne Fallou Galas Lo gaydeel buur daal yi gaynde kokki far force ma tàllalal sama loxo yalwaanaat ki nga xamante ne mooy le premier ministre ki nga xam ne mooy le ministre Amadou Ba di kenn ci daaray kokki waaye di kenn ci alxuraan ah le ministre Amadou Ba daara jàngoog daaray kokkee ngoog ñoo ngi lay yelwaan ñoo ngi lay tàllal loxo ci li nga xam ne mooy màjjaalu daaray kokki kon nag ñoo ngi la ciy woo di ci woo sa njaboot gépp waaye balaa maa sori maa ngi jëlaat sama kaddu di ko jox ki nga xam ne mooy Serigne Makhtar Ngom sopp na bi nga ñu nan nga ñu wootelee daaray kokki wa man yuhaajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraqaman kasira maa ngi leen di nuyu islaam woote na diina woote na alquran woote na yàlla nag waxoon nañu ci hadiisul si yonent bi nettali nu ko mooy sama ñooñ ci kaw suuf mooy ñuñ alquran kon kuy lebal yàlla ñëwal gaaw bonus baa ngi santas baa ngi nii avantage baa ngi nii ah yàllaa ngi jaay njëgam ci da ko yomb gaaw leen wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khayru raasixiin gaa yi wut yàlla ay ca yàlla dikk na gaaw leen ñëw leen nu ànd ak suñ gaydel suñ fallu jëm kokki liggéeyal yàlla yàlla fay nu wa man yamal amalan salihan min dhakarin unsa wa huwa mu'min wala nuhyiyannahu hayatan tayyibatan wala yasnu ahsanu bi ahsani ma kanu ya'malun wasalaamu aleykum wa rahmatullah waaye nag ñoo ngi yalwaanalaat daaray kokki di tàllalaat samay loxo di yalwaan yor mbuusu yalwaan wi kan lay tàllal loxo moo ñi nga xam ne ñoo ne ci réew mi waaye nag nekk ci li nga xam ne mooy gouvernement bi yëpp ñoo ngi leen di tàllal loxo di leen yelwaan li nga xam ne moo jëm ci daaray kokki bàyyi wuñu kenn bàyyi wuñu fenn képp koo xam ne ab julit nga ne ci réew mi maa nga ne bitim réew tal lañ lañ la loxo di la yelwaan ci li nga xam ne mooy daar ji nga xam ne mooy daar ji gën a rëy ci réew mi muy daara kokki waaye balaa maa sori maa ngi jëlaat sama kaddu di ko jox ki nga xam ne mooy dongo daara kokki moo génne kokki mooy jàmbaar mooy nit ku baax mooy nit ku bëgg lu baax waaye nit ku modeste ah nag di yelwaan yor mbuusu yelwaanam kooku mooy kan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 bu ma noppee ci moom maa ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxol sañ Mbaye Sy Mansour jiite tarixe tijaan yi su ma ko tuddee nag képp kuy tijaan rek yaa ngi ci biir beneen bi des maa ngi nuy président de la république Moussa Macky sàll di nuyu soxlam di nuyu yéen ñii nga xam ne yéen a ànd ak man bis bii ñëw ci jëfin bu rafet ci jëfin bu baax ci toogaay bu jekk di ma sotle ci daaray kokki daaray kokki nag ñoo woote man woote wu ma daaray kokki ñoo woote li ñuy woote ren la am 43 ans chaque année ñu di ko def man damaa juddu fekkoon sama ñoom bàyyi sëriñ Mor Lo yàlla na ko yàlla dolli ay leer ak ñam daan àndal yàlla na yàlla dooleel ay leer ñoom ñu daan taxaw daare kokki daare kokki nag daara yoo xam ne fi may waxee yow ni tembe juróomi junni taaliba ñoo fa nekk ak juróom ñett fukk ak juróom daanaka juróomi junni ak ak ak juróomi téeméer daal ñoo fa nekk ci maanaam su ma la ko waxee yoo xam boo demee da nga leen di compter teg leen na ku ne ma ceeb nu ñu koy lekkee ci daara ñaari ton lañuy sóor añ ñetti ton yi reer ak ndékki la amul la kenn koo xam ne baayam day joxe juróomi dërëm ca daara ji amul te ñu fa ëpp nekk fa dañoo seen waajur yi dañoo néew doole ña ca des ay jirim lañ daara kokki amul kenn kuy yalwaani te ñu ngay dund loolu nag ku mu yéemul dara war laa yéem xam daara ji yàlla moo ko taawal boppam suñ borom nag ku notti dimbali doo jël sa alal di ko def daara kokki man nag maa ngi wax maa ngi nuyu daara yëpp lii may bëgg a wax bàyyiwuma kenn kenn képp laa ci bàyyi muy sëriñ daara yalwaan ji kuy jàngal alxuraan képp laa ci génne mais képp ku jàngalu alxuraan maa ngi lay woo di la tàllal sama loxo li ñu may jox man jëfuma ko sama bopp daara ji laa koy yóbbu maa ngi woo adduna bi yëpp président de la république maa ngi lay woowaat ndax daara ji sa daara la chaque weer nga jël dund bu am solo yóbbu ko fa yàgg sa soxna dama lay fàttali ne bis bi ñëw rek pour nga yokk sa loxo maa ngi woo ñëpp ñi mos daaree kokki nag ñi ko mos chaque jour ñu may woo ndaje mi kañ la seen yowaa ji kañ ñi ko mosagul laay woo dama ne bàyyiwuma kenn kurul kuy jàngal alxuraan alxuraan nag day wax man zal lazi yuxrijullaha xaddan xasanan fa yudaaxifu lahu wa lahu ajrun karim yàlla suñu borom day tàllal loxoom naan maa naan ay ay ku may ay ay ku dimbali yàlla koy dimbali yàlla lu mu soxla ñim ñimi li loolu bi li muy tekki mooy suñu borom daa bëgg ñu dimbali ñi néew doole ñi néew doole ñi alxuraan ci la bokk ndax ñiy jàng alxuraan réew mi képp koo fi gis ak ku ma doon xalifa boo fi gis tarixa boo fi gis kaka sanc ab dongo daara mm-hmm. kon lu gën a wér daara ci dëkk bi amut ku faatu dañ naan nañ ma jàngal alxuraan képp ku dund ba faatu te mosoo dimbali alxuraan mosoo defal dara buñ la jàngale alxuraan alxuraan du la jëriñ dara day mujj soppaliku nekk ay duuma sa kaw kon nag maa ngi woo réew mi yëpp ñi seen waajur dañoo gaañu ñu bëgg ji leen bu naan sama papa mu gisoon tey mu gisoon yaay tey defal ko lii soo joxelee ab dund ca daara ja ak daara joo ko mën a joxe yàlla dana ko fekk ci bàmmeelam mu nekk ay tawféex ci kawam daara Koki nag ñoo xew ne may woote waaye man su may wax ci daara daara yëpp laay wooteel senegal daara yëpp man maay seen avocat muy daara ji nekk Touba ja nekk Ndar ja nekk Tivaouane Kaolack daara yëpp su may wootee rek su may wootee daara rek daara yëpp laay waxal daj rek nag daara Koki moo xew ne man nag maa ngi wooñ ñëpp yi ñii toog ci yéen lay commencé ku ci am loo may jox jox ma ko léegi bala ngaa génn damay yalwaan bureau bi nag tëj naa ko bis na tey fii ba sama wii ubbi wuma lépp lu waaye di wax daal na nekk fàllu damaa am sarax bii yow laa koy jox am lii kokki la jëm lépp loo xam nit soxlawu ko nag man soxlawuma ko lu nit soxla laa bu dee yére na nekk yére yu baax bu dee ay daal na nekk daal yu baax bu xaalis bëgg naa bu dee ceeb bëgg naa bu dee saabu lu mën doon loo xam nit da ko soxla soxla naa lu nit soxlawu nag bañ ko sànni ci ab sën nag man soxlawuma ko ndax ñiy jàng alxuraan yonent bi nee na xayrukum man ta'allama alxuraan wa allamahu mooy ki gën ci nit ñi mooy ki jàng alxuraan ba di ko jàngale kon ñi jàng alxuraan ñoo gën ci réew ñoo gën ci àdduna bi alxuraan yàlla màkk la ko wàccee ak madina mais Sénégal ñu ngi ko fi jàngee jànguñ ko fenn àdduna bi foo dem bu ñu defee concours alxuraan Sénégal ñoo jël pay kon nit ñi maa ngi leen woowaat ñu dellu ci alxuraan alxuraan mooy li wér tey mooy li wér suba ku dugg ci bàmmeel wallahi boo fa jëfee ay jëfee alxuraan baa nga koy jàngale baa nga koy jàng baa nga daan salax ko yaa jàng alxuraan doo gis malaaka mu lay laaj nit ñi nañ jël alal yi ñu am ak leen yàlla wërsëgale ñu boole ci dong daara yi dañoo beddi daara nañ jël daara takku ci kaw ndax yonent bi moo ne xayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ki gën ci yéen mooy ki jàng alquran par di ko jàngale loolu nag yonent bi moo ko te yonent bi lu mu wax yàlla moo ko wax kon maa ngi woo ñëpp ci yërmaande maa ngi woo ñëpp ci yiw maa ngi woo ñëpp ci lu baax nañ ñëw delluwaat ci alquran ci alquran ba tey day wax inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafisun yàlla ne téere bi maa koy sàmmal sama bopp waaye yàlla yàlla sàmmul kaamil bi de kaamil bi faw mu xale yi di ko jàng di ko tari xam nga yàlla ñañ lay sàmm ñuy dimbali xale yi bañ mën a lekk mën a naan sol yére yu baax ak ñi leen di jàngal ñooñu la yàlla sàmm bijël bi meew mi meew mi nekk ci bijël bi bijël bijël bi mooy tax meew mi yàqu yàlla nag ñiy sàmm ñiy jàngal alxuraan ak di ko jàng ak di lañ jox ñuy lekk ak di naan di leen toppatoo bañ mën a faran ci néeg yu baax am mat laa yu tëdd bu ñu xëyee mën a jàng téere yàlla bi ñooñ la yàlla sàmm mais mbind mi moom yàlla sàmm ko ndax minuit ba ko yàlla wàccee jox ko jibril mu jox yonent bi boobu la ko yàlla suñu borom téel boobu alxuraan day gën a sax xale yi dañ koy gën a mokkal réew mi dañ koy gën a jàng kon lu ñu mën a am lu mu bëri mu néew nañ ko delloo ci teer yàlla bi man nag kokki ñooy woote man woote woo dama cee nekk benn pàcc ak benn bànqaas di taxaw ci lii te lii dañ ma ko faa lebaloon ma fas yéene ko fay kon nag maa ngi woo réew mi ñëpp di wax ñëpp maa ngi leen woo ci aw yiw ak mbaax ak taraanga te dara gënul nekk taraanga alxuraan kon nag maa ngi woo ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon nag ñu xam ne woote ba ngoog mooy woote daaray kokki waaye nag sëriñ Fallou Galas Lo gaydel buur daali gaynde kokki nee na ma mi tey jii lay tàmbali bala fin le 20 décembre lay tëj ma jaalam waaye le 24 décembre mooy woote daaray kokki ca kokki bis bi nga xam ne moom la dong yi nga xam ne mooy ressortissants yi nekkoon ci daara jëpp ci jamonoy Ahmed Sakhir Lo sëriñ Ahmed Sakhir ak sëriñ Makhtar Naar Lo ba tey jii kon nag woote baa ku ñëw alquran fat la te ku alquran fat doo fanaan biti wasalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu Cheikh Bamba alquran boo féete woo di bindal mu féete woo di la dundal nga koy bayal di bindal mu sàkk ñuy bay di la jox